mbokki xarit yi jërë ngeen jëf ci ànd bi kollëre gi cant ak ngërëm di ñu suivre euh, fu ngeen mënti nekk ci àddina euh, jógee nañ ba Dakar jaar nañ fu bari jaar Kaolack ah yegg si nañ nag kër Sàmbaraxi Njóobeen kan lañ fi fekk si Serigne du Gaynde borom Kéemaan moom lañ fekk si fii ci dëkkam incha allah dinañ waxtaan ak moom ci pàcc yu baree bari ngeen xam kan mooy sëñ bi ak ci lan lay yëngu mu yaatal leen ci lu baree bare bari ba ba léegi ñu ngi koy xaar nag ñu ne ñu dafa demoon ci àll ba dafa mel ni moom la ñuy seen muy ñëw ñu ngi koy xaar bu ñëwee ñu nuyu ko ziar ko mu dalal ñu ñu fas yéene waxtaan ak moom incha allah. gi dooree si nii booba léegi ñu ngi koy xaar waaye daal euh, ba ñu bàyyi rek mu daal di gaare euh, bu ko defee nag nu nu waxtaan ak moom ah moom itamit euh, mu dalal ñu fii ci dëkkam di kër xi Sambaraxi Njóobeen Serigne du Gaynde borom Kéemaan ah sëñ baa ngi dooree yegg si nii xam naa foog ma sànni ko xeer tuuti mu ngi dooree yegg si nii. voilà waaw sëñ bi sëñ baa ngi nii nag ah ah sëñ bi sëñ bi sëñ sëñ mbaa mbaa mbaa ah sëñ bi ñun tuuti waa sëñ moom fu dem ñu ma da demoon àll ba ñu ngi lay ziar am mbégte fekk si la fii ci kër Sambaraxi Ndiobène ma nga nuyu mbokk xarit nga mu ngi noonu baa ngi nii nañ ko fekk ci biir incha allah waxtaan ak ci pàcc yu bare bare bari fii ci dëkkam di kër Sambaraxi Ndiobène xarit internet yi mbokk xarit téléspectateurs yi nga xam ñu ñuy seetaan partout à travers le monde leen di nuyu ku nekk turam ak santam am mbégte eh, fekk si fii koo xamante ne nii moo di sang bi eh, di sëriñ moo Modou Gaynde boroom Kéemaan gannaaw bi ñu jógee ba Ndakaaru eh, romb nañ Mbuur romb Fatick romb Kaolack romb Kër ma Madiabel daal di ko fekk si fii ci dëkkam mu di cosaanam mu di kër Samba Raxi Njóobeen taxaw nañ lu yàgg nag di ko xaar gis nga sànq ñu fekk mu fekk ñu si buntu kër gi mu mel ni dafa am fu mu jógee yooyu yëpp dinañ ko yaatal fekk si nañ ko fii ci këram fi nag fas yéene waxtaan ak mom ci patch yu bari bari mbégteeg ak banex lañu am fekk ci la fi sang bi fi ci kër Samba Rakhy Ndiobène Serigne Modou Gaynde borom Kéemaan ma ngi lay ziar kilifa gi. alaykum salaam wa rahmatullahi wa euh eh, DJ Prince yalla yalla nangu ziar bo lañu yol bi wax la alaykum assalamu alaykum wa waa assalamu alaykum mboolem fu internet nek téléspectateur nek di suivre chaîne bu am solo bi di borom officiel. ñu ngi leen di ziar di leen baal waxtu di leen baal àq lu bari asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah sang bi jërëjëf eh, fekk si nañ la fii tey ci sa dëkk mu di kër sàmbara Raxi Njóobeen nga bokk ci ñi nga xamante ne ni da ngeen a fonk lool seen cosaan. waaw xam nga doomu <laughs> koy faral di waxee rek amul lu dul cosaanam amul lu dul dëkkam amul fi nga xam ne foofu la fekk baax te dañoo bokk si doomu aadama yi nga xam ne dañoo gëm ne lépp lu am ci àdduna te indi wuñ ko suñ dëkk rek amuñ dara. dañoo gëm ne lépp loo xam ne nii am nañ ko ci àll bi te nekkul fii suñu dëkk rek amuñ dara lépp loo xam ne ñu ngi koy gis feneen rek bëgg nañ di ko gis kër Sàmbaraxi Njoobeen moo tax teraanga bu ñuy waaye di defal ci àdduna te fekkul ñu kër Sàmbaraxi bëgguñ teraanga bu ñuy waaye defal ci àdduna te mënuñ ko indi kër Sàmbaraxi bëgguñ ñun daal fii suñu fierté la waaw suñu feef la daal ku ñu fekk nag fekk ñu suñu tañeer macha allah am na solo sang bi mais tey euh, bu ma delluwaatee tuuti en di wax kan mooy Serigne Modou Gaynde borom Kéemaan ci tënk sëriñ du de jaamu yàlla la boo xam ne euh, comme ni ma ko waxee ci ay sorties yu bari yu ma def waaye wax waxaat lu bari wax ndax fa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin la ñu alxuraan digal deel fàttali ko wante seen bopp ndax doomu aadama ñaar dañ ko bind ci fàtte dafay yomb fàtte lool doomu aadama la boo xam ne dafa juddoo Saalum yaroo Saalum màggee fi euh, mën naa ne lépp fii suma tubaay bii laa ko defee man waaw lépp suma lépp mën naa ne ni ma koy faral di waxee missionnaire laa boo xam ne yàlla moom ma fi indi pour may ñëw di jàng si damu damu yi Kër Samba Raxi Ndiobène fii laa juddoo fii laa yoroo ba toll ni ma toll bu moyee yenn ci yenn ci at yi nga xam ne génn naa dem ci réewu naar yi jàng fu mel ni Égypte wala fu mel ni Caire ak yi ni mel ndax ku na xam na ne ñun noonu la ñuy doxee soxna yi daanaka boo lemee téere mag ñi fii ba pare soy baay dañ lay génnee yóbbu la nag si ndeysaan suma sang bu tedd ba Cheikh Imam Assane Cissé ci ndigalam ci kiyam mu jàppale woon ni lool ci jamono yooya wax dëgg yàlla moom daal su moyee at yooyu daal suñu lépp daal fii la suñu lépp fii lañ ko amalee daal Mhm. kii daal mooy Serigne Modou Borom Kéemaan. Mhm. am na solo bu fekkee na nga yaroo ci keppaaru imam Assane Cissé sang boobu ma bëggoon nga tënk ci moom tuuti rek balaa ñuy yeggali waxtaan waaw euh, nit ku naqadee wax nag nit ku exceptionnel nit ku yàlla may nit koo xam ne mën naa ne doomu Seydi Alioune Cissé laa rek doy na waaw wala nga ne doomu yaa faati laa rek Fatma Jara nga xam ne bi mu fi bàyyeekoo yàggul di taaw ci Maolana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima moo ko moo ko meññi baay bi mu taawaloo Fatma Diarra daf ko jël dénk ko seen Aliou Cissé premier secrétaire bu baay mu ñu am ci Cheikh Imam Hassan Cissé Cheikh Mahi Cissé Pape Cheikh mi nga xam ne moo fi nekk ci jumaa yi ñu ñaan yàlla yàlla yàggal ko fi lool imam doonoon nit koo xam ne nitu international la woon bon doon na koo xam ne daal moom wax ci moom yombul. waaw kenn la woon. amul ñaareel. am na solo Aïcha dañuy dugg ci waxtaan wi euh, ndaxte bi ñu ñëwee fekk nañ la nga dem àll ba euh, te ñu gis ne tamit am na ci yu bëree yoo xam ne boo koy def war koo def mu yoo xam ci wàllu sarax la wala yu ni mel yow yaa koy jóg defali sa bopp lu sabab loolu. waa xam nga doomu aadama doomu aadama yi nit ñi yemuñu euh, di je am na si jaamu yàlla yoo xam ne boo nekkee ak ñoom. lepp loo leen digal suba ak ngon guddé ak bëccëg danañ ko def nang ko bëggé waye lay gën nga dem téwal sa bop xam nga helmul yaqin ak haqqul yaqin duñu ben benn kaani gi ki ak mom na kaani gi dafa saf ak ki nga xam ne ñam ñom ñaar ñu bokk ben jotaay buñ tok ki ñam nako waye ki ñamagut ko ki wax ne mo ñam ne kaani gi dafa saf kok mo gëna wax dëgg kok moy haqqul yaqin nag dëgg dëgg nag kok mo xam li kaani gi di saf ki nag daf ko fogg rek mo waral am yu bari ñun buñ koy def ci ay sarax yoo xam ne dañ ko war a génneel réew mi wala dañ ko war a génneel ñun suñu bopp wala si yenn si jaamu yàlla yi nga xam ne dañuy jëflante ak ñoom wala def ak ñoom yenn sarax day laaj ne ñun ñu taal suñu oto déplacé wu ginnaaw bu ñu yebalee xale yi ñu dem ba pare ñu déplacé wu dem taxaw observé commencement ba fin lépp loo xam ne ñoom luñ ci fàttale ñoom xale yi comme dañoo nekk si kër gi nekk ci formation moo ko luguñ lépp lépp loo xam ne ñoom luñ ci fàtte ñun ñu fàttali leen ko lii mooy sababu nu sool bi mm-hmm. moo tax daal ñu fekk la nga dem àll ba ñu taxaw la xaar lu yàgg waaw waaw ñun moom wax dëgg yàlla moom lu ci ëpp moom si liggéey bi daal rek si la ñuy nekk moo tax jot gi bëriwul boo xoolee yu ci bëri dañ koy bëgg di def di def ay sorti di wax mais li ci bëree baree nit ñi ñuy woo fii ci àdduna bi wala ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy pour di fi bëgg ni ñëw dañ fiy ñëw ba yegg si sax wala boo ñeekuwaan ñibbi sax te duñ mën a am ak ñun euh, émission ndax ñu tënk lool nekk ci a a ñor daal hmm. macha allah am na solo résultat moo gaynde borom kéemaan yàlla suñu borom may ko xam-xam nag waaye nag xam-xam boobu noonu da koo jël waat ko jaam yàlla yi mooy que ni jaam ñi ñoo ko tax a jóg jaam ñi ñoo ko yitteel ba tax na bokk bokk na ci liñ lay mandargale mooy buñ ne Serigne Modou gaynde borom kéemaan waaye nag sëriñ Serigne Modou gaynde borom yërmande waaw waaw xam nga loolu moom gars yi ñoom ñoo lay askanele ay tur rek jël la bootal la ko xam na nag li nga xam ne moom moo ciy am ba des mooy da ngay ñaan yàlla rek borom tur bi wuyoo tur bi wala turbi bi wuyoo borom wae bi waaye daal borom tour bi bu wuyoowul tour bi rek dana xaw a doy waar bala nga xam ñàkk kersa nit nga di ko woowee tur bu moomut waaw toogal ak nit rek nga di ko woowee boo xam ne moom la mos wuyu waaye waxtu woo ko laalee turam rek keroog mu gestu la atta sax fi mu nekk ñu bari ñoo tudd loolu sax waaye ñoom ñëpp danañ gestoondoo ba nga ne déedéet waxuma kee de kee laa wax su ko defee nag ñoom ni doomu aadama yi ñiy jëflanteel ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo baax ñoom ñi nga xam ñoom ñooy yaatu ñoom ñi nga xam ñoom ñooy ay nitu yàlla ñoo jël tur yooyu bootal ñu waaye ñun moom ay jaam lañ te ay jaam lañu mus di doon. Mm-hmm. ay abdul faqiir lañ waaw abdul faqiir am na solo sëñ Modou ñu dugg ci beneen waxtaan moo di eh, ñaan ci boppam mu mel ni daal jamono jii nii eh, ñaan ban effet lay def ci doomu aadama waaw ñaan eh, ñaan dama ko <laughs> waxoon naa ko benn sortie fan yi rek yàggul dama ne ñaan mën nañ ne doomu aadama genn wàllu dundam lépp ñaan la amul dara loo xam ne mi ngi ci développé te lu dul ñaan def ci bokk balaa ngay juddu laata ngay juddu bi nga juddoo ni ngay yaroo ni ngay màggee ba ni nga fiy jugee lépp ñaan la amaan sax si ñi ma ko sañ a wax bala ñu laa bala ngaa sos sax yow sa wayjur bu jóor sa wayjur bu góor day jóg dem ñaani sa wayjur bu jigéen kon ñaan am na ñaan dugg na danañ ko may buñ ko mayee sa jàkka ja lu ñuy def ñaan buñ ñaanee pare luñ buñ la indee taaj ñaan nako nonu ba kérok ba nga soso ba nga juddo la defaat fofu ci diggante ba ñaan tuural la dret def nangam na motax ñi nga xam ne euh, toñuma kenn bala miwu kenn ngeen jéggal ma motax ñi nga xam ne dañuy dakk tour dret fofu xaw nañ fa joom tuuti ndax bis bi nga juddo bu bis bu sé la nga xam ne lañ la digël moy nga tuural sa dom dret kon ñi nga xam ne dakk tour dret fofu xaw nañ fa joom tuuti bu ko defee bu lolu amé ñaan moy am xamul dara lo ne prince ma wax la ko tay mi ngi dox ci aduna wala mi ngi développé wala mi ngi taxaw ba nit ñi diko seen lu ñaan daf caa dugg waxon nako dina ko waxat ñun suñu sëriñ maulana Cheikh al Islam la ibrahim Isba radiyallahu anhu daf ñu waxal daf ñu wax ne ngunu ganar sax boko ko ba pare bala nga caa dugal ak ganar def fa ay mbir ba pare do ko fa dugal manam nga xamné ñaan lu am effet la ci société bi gis nga ñaan def na lu ne waye gis nga ñaan man na lu ne gis nga diggante xacc ak door sax ñaan daf ci am bu fekkee da ngay sétane football wala lamb di nga ci xam dara da ngay gis yu xam daf lay leer li mom non non du du ak man bu dee fubal da ngay gis bii yoo xam ne da leer na lii du ak man lii ñaan la bu dee ci làmb da ngay gis jël yoo xam ne da leer na lii ñaan la loxob doomu aadama daf caa dugg bu dee ci société bi da ngay gis koo xam ne yaa ko gën a liggéeyu ndey fuuf gën koo jàmbaar fuuf di ko gën a teel a yeewu fuuf mu raw la xamu lu ko waral gis nga ñaan boo ko amee dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg li jàmbaar yi daj doo ko daj te lu jàmbaar yi faj nga faj ko lu am solo la ci dundu delluwaatal foofu ngeen ñaan boo ko amee. ñaan boo ko amee dëgg-dëgg. Mhm. lu jàmbaar yi daj doo ko daj de. Mhm. te li jàmbaar yi faj da koy faj. li jàmbaar yi daj mooy dañuy yeew fajar di dang-dangi di yéeg di wàcc yow ngay yeew midi te bu ñu amee soxla ñoom si yow la ñuy ñëw wala ñaari lépp loo xam ne ñu ngi koy def ci àdduna boo ci bokku du faju am na ci ay këri doomi baay yoo xam ne wala ay këri doomi ndey yoo xam ne boo demee dem fekk waa joo xam ne noonu lay mel mhm. famille lu muy du jóg fi mu toog loolu ñaan da koy def mooy mooy mooy da leen ëpp la am ëpp leen fayda toog ci ab ruqam xool waa sell joo xam ne ku ku baax la ku mel ne Cheikh Baaya da tey dénk ko boppam kooku yoral ko ay mbiram bu ko waxee doxal mu dox bu ko waxee toogal mu toog da xam prince doomu aadama ay mbiram dafa tënku ci biddiw ci tabian gis nga doomu aadama bu lay ñaanal mm-hmm. fekk xamagul xam amagul xam-xam boobu xel mënu joom dëgg dëgg dëgg dëgg mun la ñaanal nga am résultat mais bu xasee téye sa biddiw su koy mu jóg su ko mu toog xamut ku yàlla bind ma wax la ko tey xamut ku yàlla bind te bindaaliwul laak am xamut ku yàlla bind te bindaaliwul laak xam xamut ku yàlla bind te bindaaliwul ràññee ma jox la ci misaal bu ndaw yàlla bi mu lay bind lépp la la mooñaale dalaa mooñaale nga war a am far force da ngay xam far force da ngay xàmmee far force da ngay ràññee far force misaal maa ngi nii bu gàtt demal Espagne tey nekk fa at rek at ngay lakk espagnol waaye yow nampoo espagnol nampoo ko de jugeel Espagne dégg nga espagnol bi mi ngi ci yow demal Arabie Saoudite nga nekk fa at di lakk arab jugee fa demal États-Unis xanaa am nga ñaari langue ak bi nga yor muy ñett nga dem états di lakk anglais xanaa kon ñeenti langue yi ñëw na waaw fu mu newoon ci yow da nelaw yàlla dala ko mooñaale mm-hmm. yaa ko yee nag xalal tamit noonu la mel ci nit xam-xam mm-hmm. noonu la mel ci nit xamul benn doomu aadama boo xam yàlla daf la mooñ rek nga ñàkk mi ngi ci yow yow yaa koy yee mu dem wala nga dajeeg benn waay bu mel ne Cheikh Bayada mu yee la ko am na solo sëñ bi macha allah ñaan daal lu mënte def amul waaye waaye nag jamono ji est-ce que nekkul ne sëñ bi tamit eh, liñ naan ñi gàmmoog ñi raas dem bokkuñ maanaam eh, ñu bari dañ naan dañoo dem ba dañoo découragé ci ñaan loolu moo fi mus di nekk ñi gàmm ak ñi raas dem ñoo fi mus di nekk bu amutoon xare badar du am xare ut du am xare yi fi jaar yëpp loolu du am ñëpp mënuñu xamante dëppoo jël benn yoon ñëpp mënuñu baaxit waaye ñëpp mënuñu jub ndax iblis kero bi ko yàlla nag wa isqul naa li malaaykat usjudu li aadama gis abba wastakbara wa kaana mina kaa dafa bañ lànk te bañ ko laaje lu tax benn raison bu ndaw rek la wax ta lu wax du dara man yalla man ci safara nga ma bind adama ci ban nga ko bind kon man duma ko sujotal deng nga ko xam nga lolou dafa lolou lolou bëgg nañ lay bu gëna deugër bo ta lolou du dal ta iblis ci ci ñooñu yalla yi la bok kérok ba nga xamé ne yalla nee ko génnal dakk ko dafa taxaw ak yalla ne ko dama lay ñaan dara nak nga may ko moy nga ma way dama bëgg manit nga jox ma mission ma doon ko xam ni kérok yowmal qiyam may mbal sama sama sama sama sama sama wa njabot dugal len safara comme da nga ne yowma la tamliku nafsun li nafsin say an wal amru yawmi isin kérok bis bobu bakkan du ba jeriñ morom bakkanam dar man it ma def benen liggéey bo xamne kérok ñi nga xamne ñoma ñoma ak ñu topon sama ginau, ñu ma dugal len safara te iblis lool nak mo fi mus di nekk nag loolu fi mus di am bu fekke ni yalla dimbal na la nga don ko xamne jambar nga lool wala xam nga liggéeyu ndey tuti da nga xam ku mën ak ku mënut da nga xam ku xam ak ku xamut ni nga koy xamee nen rek la doomu aadama bala ngaa jëflanteeg moom amal ci moom ay renseignement yu leer bul wax ne Serigne Modou xaritu prince la rek xam naa prince prince boole na ma ak moom nañ jëflante déedéet laajal prince kan mooy Serigne Modou amaan na prince xamul Serigne Modou bu baax ci écran bi la ko xamee xaritoog moom prince bu dee nit ku baax la laa wax dana la wax ne laa ah, man kan miinu ma ko ci wàllu ñaan de sama xarit la nii rek ñuy jëflante teranga defee yow nga def dem xooli keneen laaj ko ne ko sëñ Modou foo jaarak ak moom bu fekkee ne am nga ay résultats nga boucler say résultats comme ni koy gars yi di defee ci enquête nga doog a dugg mais ñi ñoo xaw a ñàkk fayda ci benn côté da ngay gis ko koo xam dafa mel ni sëñ Modou nii rek benn taalibeem ba baaxee ko yére baaxee ko kaala mu toog wax wax wax nga woo ko téléphone jël million 4 million jox ko lam la defal gisoo ko nga ne ah sëriñ si sëriñ kay nangam nangam déet bul baatal sëriñ si ñi man ñi ngi fi ñi mënut ñi ngi fi dégg nga ko da ngay xool ñi nga xam ne ñoo xam xamee ràññee mën nga dem si ñoom ñu liggéeyal la comprendre nga dinaa ko waxoon naa ko suma benn émission dinaa ko waxaat mara répété waat ko na nit ñi bàyyi xel ne échec bu amee ñaari mbir ko waral wala ñett képp koo xam ne mi ngi yëngu ci alxuraan laa wax de waxuma ku yëngu ci leneen waaye képp kuy yëngu ci alxuraan échec bu amee ci mbir mi muy liggéey ñaari mbir waral wala ñett bi si njëkk ñàkk sell ak bi danay waral mbir mum liggéey mu échec ñàkk a dëggoo client bi dëggu gi maanaam ñëw pour essayer képp ku koy def ci sëriñ danay waral loola sëriñ bi liggéeyal mu échec ñàkk ki nga xam ne nii mooy taxawaay bu mat ci sëriñ bi digganteem ak boromam danay waral lépp lu mu mu échec mais alquran du échec te alquran wax yàlla la prince garab yi ñuy jëfandikoo jëfi yàlla la wax yàlla ak jëfi yàlla boo ko boolee ménage ko nag force da ngay am résultat man maa la ko wax macha allah am na solo euh, nekkatul ku ñuy nattable ñu bari ràññee nañ ko xàmmee ko loolu waral ñu dàkkantale ko Serigne du Gaynde borom Kéemaan yàlla may ko na xam-xam waaye mu koy jëfee ci anam bu sell euh, bokk na ci sànq yaa ngi koy wax jubóog sa borom ak sell gi ñu gis ko ci yow lool nekkul loo xam dañ koy wax pour lu la neex waaye gis nañ ne euh, liñ naan gars yi nee nañ sëñ bi dafa ñemee kurus lool sëñ bi dafa ñemee jaayante ak boromam. waa xam nga doomu aadama moom même boo doonul ñaankat da doon ku ñeme kurus defulo yàlla lu tax mu cërale la lim la cërale waye ñam ko xagn defuñ yàlla lu mu xagn leen lam leen xagn kon da nga war di ñaan di ñaan lu Koyakar yaakar yalla yaakar musna deg son ben goor gu wax lool mu ne yi courant bu leer la fo lamb daj ko mu ñaan ak xaaliss ak football dekul fenn dekul fenn de ta wax ju wër la loolu legi nag bu fekke yalla daf la dimbalé nga doon ko xam julit nga say wajur biñ la def liñ def ci yow ba paré nga xam nga xam lepp lo mom la yalla bëgg li yalla bañ li ngay def moy da ngay Don jam don abdul faqir di toroxlu yalla suñu borom tabaraka wa taala waxtu wi nga xamne ni nii leer na ne heure bi suuf sedd nga jog ya nga deg di def say lawrat ñi nga xamne ñom ñoo la denk ñaan nga jëflante ak ñom ci walu wo ñun de ci li lañ nek ci lañ sax ci lañ bëgg dé ay jam rek lañ nak xamuñ dara. motax nit ñi di joggé fu nekk ci adina di setti di joggé South Africa di joggé États-Unis di joggé fu nekk gis nañ ngay ak lu bari anglais wa xam nga anglais ñaara dina la wax dara fi mu wuutee ak yenen xéet yi deggu la anglais foko ko fekk day deggu lepp lu mu la wax signal su ne la duma ko def du ko def su ne la dina ko def dina ko def musna ko wax suma ben ki bo xamné ma ngi suma ben xarit mané ko yalla dimbalé na len ba nga xamné lepp lo xamné ni képp ko xamné wax ngeen ko niko 2 heures dina lak dëkk bi 1 heure et demie fu mu jotee bagage bo bañ mo lak génnee ko parce que 2 heures buy jot ñu lak dëkk bi te yàlla dafa dogal may dund ak ñoom dëgg yàlla dafa dogal ñoom ñu doon ñoo xam ne nii dëgg la ñuy dund ñaari dëgg nag boo ko boolee boole tuur wala boole naan rek mooy doon affaire bi su ko defee ñoom yàlla dafa dogal bépp soxla boo xam ne indi nañ ko fi yàlla dafay fekk mu man ma man loolu bépp soxla boo xam ne keneen indi na ko fi mu yàlla dogal fekk munuma loolu dama naan la munuma ko lii moom boole ak ñoom hmm. am na solo dinañ ci ñëwaat mooy sa tukki yi ngay def eh, di tukki lu bari ci réew arab yi di tukki lu bari ci réew eh, anglophone yi mm. yooyu yëpp dinañ ko yaatal ak ñaata la ñaata langue la sëñ bi di làkk yooyu yëpp dégg naa awsa sax bokk na ci di dinañ ko yaatal waaye nag eh, lii di ñaan ci boppam dama gis ne Sénégal joxuñ ko valeur trop. waa xam nga lu tax doomu aadama lépp lu mu valoriser ñu valoriser ko ko lépp lum mu sàgganee ñu sàgganeel ko ko gis nga weñ gu ñuul. ak or weñ lañ mhm. waaye weñ gu ñuul foo tourné dajeeg moom est-ce que or da nga def foo tourné dajeeg moom weñ la rek mhm. dañ ko valoriser moo tax foo ko pesé kilo bi mooy gën a seer fuuf mhm. kilo boo mën a yaakaar ci àdduna bi loolu nag dañ ko valoriser waxtaanee ko xool xoola kayit xaalis kayit gii nga téye ak kayit xaalis benn lañ waaye li lay xamal ne kayitu xaalis yàlla moo ci def sirru boo ne valorisation bi waral na ko mooy kayitu xaalis rombal ab dof rek te ko ci wetam taxaw fee di ko xool dof laa ko am na antu xelam ku ñuy tuddee ñun dof day ñëw jël ko for denc boo ko fekkoon moom mu yor ko nga bëgg koo jël ci moom keroog koñ bi yëpp danañ génn donte kon moom mu muuma la sax mënut a wax sax waaye danañ xam ne xaalisam bi nga bëgg a jël te pourtant kayit yi mu yor ak yeneen ak kayitu xaalis du bokk sax fi mu leen di denc day ko sa dee ko dee nag man maa la wax lii léegi nag ñaan su fekkee yàlla dogal nañ dafa am ay sart yoo xam ne ni moom mooy war a dajee ci yow nga doon ñaankat te sartu yooyu dajee wut ci yow nga bëgg a doon ñaankat keneen def noonu keneen def noonu keneen def noon ah su boobaa yaakaar naa dina xaw day waar de Prince man mii di wax ak yow am naa ci seede boo xam ne bu leer la su ma ko waxee du ma ci am bàkkaar suma ma bi ma daan ñawal sëriñ la léegi dañ koy rang déedéet daal moom nee na la nee na moom nee na sëriñ la léegi daal. déet sëñ bi li ngay wax nii yéeme ne de te moo la doon ñawal yow. man moo ma daan ñawal sama tailleur la moom daan ñawal man daal li ma xamal ne sëriñ la mooy daaw xaw ma daaw jéeg dama ko woo doon ko am yu ma koy sant mi ne ma man nag ah, aw ma jot. ma ne ko ah woo kenn ci xale mi mi ma sa waa ji léegi dafay kii de ma kii lan mu expliqué ma léegi naa dañ koy rang xam nga loolu mooy affaire bi. te man ah man de xaw ma de mhm. tooñu ma kenn de baatalu ma kenn it mhm. waaye ba may mujj a xam mhm. sa mu daan jëlal mesure français lay bind su ma ko joxaan man ay bagage yu mu war a jëfandikoo su ko bindul ci français du xam nu mu koy jëfandikoo waa kooku nu muy ñaanee loolu moo tardeel loolu moo tax nag ñaan valeur bi mu amoon ci réew mi dëgg-dëgg amatu ko looloo waral gars yi ne ñëpp ñoo yem waaye ñëpp yemuñ de gis nga butéel la mu def mm. loolu lay saañ ba di xeeñ am na solo bu dee lu mu def loolu la saañ bay xeeñ kon nag xool leen bu baax fi ngeen di teg seen tànk xam leen ni ngeen di jëflanteel eh, li may faral di wax sëñ bi dara yóbbu ko fakk yóbbu ko du alal du dara ndax da nga koy faral di wax si say kàddu ngeen ne dara feesul sa bët ndax lépp loo soxla suñu borom defal na la ko waaye li nga li la yitteel mooy soxlaay jaam ni nga taxaw ci dañuy desandi ci waxtaan ba léegi sëñ bi ñaan ci boppam valeur bi mu amoon joxatuñ ko ko waaye ñu dugg tuuti ci ni ngay jëflanteeg waa bitim réew yi ak ñoom tamit nan la ñuy mën a def ba mën a am accès ñi nga xam ne ni amaguñ accès maanaam yegsi ci yow am na ñoo jëflante ñu bari bitim réew nga dikk ci tuuti rek waaye dikk ci ñi nga xam ne itam bëgg nañ eh, jot ci yow te mënaguñ jot ci yow naka la ñuy def. numéro téléphone bi nga xam ne mooy affiché ci bande écran bi mooy suma numéro téléphone whatsapp bi nag laa ciy recevoir képp ku ci woote appel normal xale yi ngay jot su fekkee ni whatsapp bi mooy gën a yomb si yow nga jaar fa boo fa jaaree da nga ma jot. foo mën a nekk ci àdduna bi nekkal Chine nekkal Hong Kong nekkal Amérique nekkal Germany nekk foo mën a nekk rek mën naa jëflante ak yow parce que yàlla dimbale na ma ba nga xam ne si ñi téye kawnu bi du ma ne ci laa bokk waaye limaale nañ ma ca sama turoo nga jax du ma ne ci laa bokk nag. bari na ci loo xam ne su ma bëggee mu fanaani euh, Amérique du fanaan bëri na lu nekk Amérique su ma bëggee mu fanaan si euh, Sénégal fii mu fanaan si fi yàlla may na ma cër boobu fépp foo mën a nekk si àdduna say bagage dana la fekk bu ñu jëflante ak yow. jëflante gi nag nekkut loo xam ne da ngay toog fa nga toog ne sëriñ bi defal ma nangam mu defar ko yónnee la ko du gàllaaj ci nit jaaroo ci nit du gàllaaj ci nit bokkut ndox ma ca Amérique bi ci Sénégal bi ci France lépp ndox la boo naanee même effet bi lay def léegi nag gàllaaj ci nit nag nga xam ne gàllaaj gi yow lay doon sa gàllaaj yow bokkul ak loolu doonul loo xam ne chargeur universel la da ngay brancher rek chargé mu dox Ousmane Biran Faati Xëri Mbay Roqi Daba limi tur yi yëpp benn bu ci nekk boo ko doon liggéeyal mhm. da ngay xool la méngoog moom ca liggéey booba nga boole ko biddiwam liggéey ko nga xam ne heure bi biddiw bu jóg galaaj boobu heure boobu lay dox su dee tul su dee galaaju kaso su dee galaaju accident su dee bayre su dee leneen su dee wërsëg su dee koo xam dañ koo téye mu war a génn lépp noonu lay demee parce que Ousmane bi nga indi tey pour ma dimbale ko jàppal ni am na Ousmane yoo xam ne ñi ngi ci donkaase gi di liggéey soxla wuñ dimbal wa léegi su fekkone dama liggey liggéey ci si turu Ousmane kese mm-hmm. kese kese kese kon kon galaaj ko naa kon si Ousmane yeb la wara dem ah, xam-xam nak lima lay wax ni dafa xaw xoot nak ah, nag man kay sama bop elem na sama bop bi nak man sëñ bobu ngay deg kay wa kay il faut nga leral ko jàmm parce que Ousmane bi nga xamne ne nek keur sa Samba Raxi mm. ak Ousmane bi nek Dakar ño bok tour man mm. na am sax ño bok melo parce que nit ñaar da ngay deg wolof diko wax mm. waye nak bu kuñay bi diw tay bo doon ñaanal Ousmane bi nekk Kër Samba Raxi Njóobeen te xamoo foo jaarale ngana da ngay ñaanal Ousmane rek Ousmane rek la ñaanal wa sanil ñaan gi mu dem ba xam ci ban Ousmane lay dal. do xam mu nek ben genre euh, connection bo xamni direct ci ki nga koy. lu wër lay doon gis nga téléphone. sept chiffre la ñep xam nañ ko juroom ñaari chiffre mhm. amna lo jital ci kanam do ko ca tek chiffre bu mujj ba demal ba mu ba ci chiffre bu mujj ba mhm. mu wara nek nekk nga def fa neuf ba xam da nga jot ka nga doon soxla. léegi li gëna graw sax mi ngi ni ki ngay ñaan loo tey. moom lam lay ñaanloo yëgagoo ko waaye machine ba baatin bi ci boppam moom yëg na lam lay la nga koy defal yaa ngi woo DJ Prince Prince fay na téléphone am mu ngi émission booy woote Prince yëgagul ne yaa ngi woote de waaye boo boo jotut machine bi moom yëg na bu yàgg yaa ngi woote machine bi moom boo jotut rek da la koy wax ne la Prince kat moom dafa jàpp waat ko ci kanam te Prince yëgul ne yaa ko doon woo sax connexion boobu day am ci diggante taalibe bi ak sëriñ bi kiy ñaanlu ak ki ñaanal su ko defee mu ñaan laa ñaanal nga am résultat du doon loo xam ne dañuy yëkkati rek joxe wala ay objet yoo xam ne dañ koo teg ku woote man léeg-léeg nit woo ma wala envoyé message ne ma jaaro bi laa bëggoon nga wax ma ñaata nga koy jaayee wala ndomba gi laa bëggoon nga wax ma ñaata nga koy ñun liggéey wuñu noonu képp koo xam ne ñu la lay liggéeyal su traitement lañ lay teg lay jiit ci traitement bi listixaar lay doon nit ki mënoo koo liggéeyal te xamoo ko xamoo tur yaayam xamoo tur baayam xam nag laa la wax waxuma la xam-xam koñ bu mu dëkk xam ne nii la tudd nit ki wala nga ko liggéey dang koy xam bu baax xam ban waxtu lay biddiwam di jox xam ban waxtu lay tudd nga man ko doxlo mu dox nga man ko togal mu tok non lañuy ñaana wax na la ne ñëwal rek ma joxal la ma lay jox nga dem farfos da ngay am résultat dalay nax man mala ko wax mm. am solo donc nak euh, mom lañ fekk ci fi Serigne Modou Gaynde borom keman fi ci keur sambara xi njoben serigne euh, bi nak li nga xamne modi di euh, plante yi nga xamne da ngeen da ngeen di jëfëndiko ay plante seen bir ñaan waaw xam nga wax naa la ko junj naa la ko ci ginnaaw nee naa la waxi yàlla ak jëfi yàlla ñoo mën a ànd boo xoolee alxuraan waxi yàlla la boo xoolee plante yi jëfi yàlla la yàlla moo fi amal muy garab yi bokk na ci li gën a tax sax man pour ma mën a nekk Dakar day xaw a jafe maanaam loose fa day xaw a jafe plante yooyu ci lay bokk ndax man du jënd garab si jaaykatu garab waaw <laughs> xam nga garab gi nga xam ne da ko war a jëfandikoo ci bayre da nga ko a jëfandikoo ci galaaj kaso wala ci leneen

yow nga jógee ci àll ba ñëw jënd ko kon jënd nga garab bo xamné 1 mois 15 jours la def te 7 jours la waron def mom garab boobu légui su féké da nga dem jënd ko ca jënd ko la wax dé mm. nga ñëw bolé ko la la sëriñ ba jox échec am nga né sëriñ bi xamu dara ci benn côté sax dina d'accord né sëriñ bi xamu dara li tax moy wuru la nango jox garab bi nga xamné lér na ne lii de vie bi li la mu bayyi la nga dem nga dem uti ko fenen temps bang koy am mën na fekk lola nona primé xam nu ngeen koy waxé dootul dootul fonctionner dootul dox noonu la demee garab dafa am garab yoo xam ne boo koy weer prince warul gis naaj dafa am yoo xam ne boo koy liggéeyal jaamu yàlla warut a wecceeku si ñetti loxo warut a jaar si ñetti loxo garab yii ñuy jaay xamoo si ñaati loxo lay jaar xamoo fu ñu koy weer amaana sax hygiène bi ca war du ca loolu moo waral ñun fii lañ toog fii la ñuy nekk garab bu ñu soxla waaxu ba ca àll ba xam lañ koy jëndee dem jënd ko indi ko kuñ ciy liggéeyal bu ne ñu boole kook lañ koy composé ak mu am résultat noonu la ñuy liggéey macha allah am na solo kàddu yi am na solo bëgg nañ loolu nag fekk si la kër Samba Raxi Njóobeen xam naa ni eh, duñ la teelu yàgg garab yi wax nga ci waaye daal ci gàttal kon kon kon kon daal maanaam eh, garab yi danga nga koy jaxase ak alxuraan tamit pour liggéey ci waaw loolu wax yàlla ak jëf yàlla moom ngay boole pour mën a am résultat mhm. Mhm. am na solo ayca jërëjëf ci kon nag xam naa ni waxtu wi dab nañu daanaka sëñ bi dañ lay bàyyi nga tàggatoo tàggatoo gudul tàggatoo waaye nag incha allah di jox mbokk xarit internet yi beneen beneen jour beneen émission boo xam ne incha allah di nga ñëw ci yeneen anam maanaam eh, ay mbir yoo xamante ne jaam bi mën na koy jëfandikoo ay ñaan ak yu mel ak ay digle yoo xam ne dinañ ci ñëwaat incha allah ci beneen émission lan ngay tàggatoo dul tàggatoo ak lan ngay ñax askan wi sëñ bi di wax eh, waa adduna bi yëpp dañu xaar Euh, ci borom Kéemaan officiel TV chaîne bu am solo bi incha allah rabbi prochaine émission bis bu ñu yàlla woon la waatee si jàmm xaw ma ren lay doon xaw ma déwén ndax jot amul waaye incha allah rabbi bis bu amee daal dina si joxe ay secret yu am solo yoo xam ne ñi nga xam ne tiit nañ jaaxle nañ te ñoo yeg si si man wala mënuñoo yegg si beneen sëriñ boo xam ne dina profité foofu nag wax tuuti mhm. euh, gis nga nit ki boo wootee ba wuy ba nit ñi wuy si la del góorgóorlu di recevoir tuuti. waaw waaye woote ba nit ñi wuy si la nga lank na dootoo recevoir loolu métti na lool sama mbokk sëriñ yi maa ngi leen koy bàyyiloo xel bu baax a baax a baax a baax baax ñuy dimbale daal ñi nga xam ne ñun ñoo leen woo bañ wuy si ñu dañ leen dimbale léegi nag dinaa su boobaa dinaa si joxe ay mbir yoo xam ne képp koo xam ne yaa ngi góorgóorlu pour jot kenn koo mën a jëflanteel te jotoo ko soo ko defee yàlla mën na la cee may résultat ñi ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di baalu ñëpp àq di baal ñëpp àq wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu fi amaanillah waaleykum salaam wa jërëjëf mbokki ak xarit internet yi mbokki ak xarit téléspectateurs yi ñu ngi woon fii ci kër Samba Raxi Ndiobène fekk si fi woon Serigne jaajëfal ñëpp nga xam ñu ngi doon seetaan émission bi di leen jox dig yoon ci beneen émission incha allah ngi noonu képp ku ko soxla numéro yi mu ngi ci bas écran bi moo xam nga nekk ci réew mi wala bitim réew boo ko buggee jokkoo ak moom incha allah jëlal numéro yi nga woo ko di fii ci eh, diwaanu Sénégal wala bitim réew foo ci mën na nekk rek jokkoo ak Serigne Modou Gaynde borom Kéemaan man ma toftal ci yërmande gi moom mu ci moom lool macha allah nitu social la yooyu yëpp beneen émission dinañ ko gën a yaatal jàmm ji sax sutura bu law dudu bu ànd ak tawfeeki xéewal jàmm ci xol jàmm ci xel yi yal yàlla musal te duñu musal jërëjëf euh, suñu caméraman bi ñu àndaloon solo ak ki nga xamante ne nii moom moo di Ababacar Sadikh ah ñu ngi koy jaajëfal jaajëfal ñëpp ñu doon seetaan jaajëfal aussi waa dëkk bi waa kër Sambara Xinjobe jërëjëf gis nañ aussi nit ñu teeroo nit ñu teralee yal yàlla fay leen jërë ngeen